bon euh, waaw si si si si ma bon loo xamante ni yàgg naa ko wax moom mooy question wu loyer yi ba tant que répertorié ñu ñi nga xamante ni ñoom ñooy bailleurs yi ça pose toujours problème et euh, direction wu euh, impôts et ñoom ñoom ñoo war a def liggéey boobu Euh, parce que ñoom ñoo yokkoon en charge mais ñoom tamit peut-être tamit peut-être am na ñu fa nekk comme li ñuy wax ñoo xamante ni système bi la ñu nekk. ci mm-hmm. système location bi la nekk. ci bailleur yi euh, réflexion dama lay laaj yow nga ci xalaat est-ce que à votre avis. le fait que problème loi bi mu nekk échec parce que yaa ngi koy wax loi wu 2014 bi échec la 2017 on a essayé tamit échec la 2023 ñu génne benn décret boo xamante ne euh, boo xamante ne boo saana peut-être amu benn amu benn njëriñ ce que lu ko échec loo mooy mooy affaire location lu ko échec la de toute façon c'est un problème boo xamante ne dañ ko war a régler parce que am na ñoo xamante ni seront le besoin ñu ut location te ñëpp mënuñu dëkk ñëpp mënuñu dëkk Dakar faut des faut une alternative est-ce que le fait que euh, mbirum location mu am ñoo xamante ni ñu ngi ci biir ñoo xamante ni amuñu compétence pour louer ñoom dañuy louer que soit ñu xam leen xamuñu leen suñu waxee dañuy répertorier euh, ñu def euh, def flouté ba ñu jàll ci leneen est-ce que loolu moom moo tax ba mbiru loyer bi. Euh, mu bañ a réglé wu est-ce que loolu est-ce que yaa ci biir con euh, organigramme bi am na ñoo xamante ne waruñu si nekk dañuy loué te waruñu loué loolu moom mooy bi. voilà gis nga mbirum ñett nit ñoo ko sëg li ñuy wax. way luyaas bi kii luye locataire bailleur bi borom kër gi locataire bi mën naa bañ a xam sax borom kër gi. il y a ce qu'on appelle les intermédiaires. troisième entité bi. mooy les courtiers agence immobilière ak courtier yi courtier yi yàq na lu bëri yàq na non il faut le dire yàq na lu bëri quoi. lu bëri lu bari yàq na ah il faut oser le dire c' est une bonne chose le courtage et dans tous les pays y a courtage pétrole dafa am courtage leneen dafa am courtage mën nga ko def. waaw ah, waaw lobbying tamit bon boo def lobbying tamit am na ay règlement aussi. sauf que ci loi bi courtage nekku ci. courtage. reconnaître ko mais reconnaître ñu ko mais ils vont les il y les agents immobiliers les agents immobiliers ils travaillent avec les courtiers. Mhm. courtier bi moom mooy ñoo koy indil ko nit. daa mhm. ah, yow de da ngay luyee li produit bi indil naa leen nit ñu jox leen seen pourcentage mais li gën a réglé ba la yàqu problème mu li gën a jafeel mbirum loyaas Sénégal mooy Sénégal yi ñoo am problème ak loi il faut dire les choses telles qu'elles moo am problème ak loi Sénégalais mën na laa concevoir loi boo xam ni. soo ko yóbboo États-Unis foo ko yóbbu danaa loi bi ki ko concevoir est-ce que nit la loi bu mucc ayib mais quand il l'application personne ne te léegi lan moo tax ñu du appliquer loi xam nga lan moo ko wax parce que on n'a pas des états qui sévissent c'est-à-dire état boo xam ne day dóoraat comme lépp non dañuy sanctionné. mais ñi ñu war a dóor bu fekkee ne suñu saytaal bi ñu ñëwee xam nga am na dëkk yoo xam ne personne ne peut se dëkk yoo xam ni am na loo xam ni soo ko defee xam lu la cay fekk. mais fii Sénégal nit day xam ni loi bi lii la wax mu jéem koo def parce que danaan on ne va pas appliquer la loi. loolu moo gën a. boobu beneen problème xam nga loolu beneen problème la. Mm-hmm. les gens nag ne respectent pas la beneen bi état moo war a am fermeté fulla ak fayda régler problème location troisièmement est-ce que mën na ko modus operandi bi ñuy jël méthode bi ñuy jël pour régler problème location man ba léegi jusqu'à preuve du contraire dama gëm ni tant que fixé wuñu prix yi par zone par zone prix zone waaw Almadi euh, Almadi Almadi Mamel Wakam à peu près peut-être yenn ko yi ñu bokk même prix nga jël liberté 6 extension def say zone ni néeg du fi weesu lii te nanoo xam dëgg yaa xayti ak dëkk bi di méttee ab néeg liberté 6 extension wut a dépassé 30 000 xam nga la moo tax waru ko dépassé. Hmm. maison yi ni luyee Dakar yëpp gis nga kër googu daal di ma ñëwaat ci kër gi nga may ma ouvrir benn vague kër yi ni luyee Dakar yëpp. Mhm. c'est des maisons qui de été amorties. construites dans les annes 70 nga koy luyee booba ba léegi yu ci bëri xaalis ba génn ba génnaat. kon tey actuellement ba tabax yeneen i kër waaw su doon tey am naar buy defar ngir yàlla gëm yàlla mbaa nit ko philanthrope day jël sa kër gi léegi kër gi. may du du kenn du fay location. ndax kur gi day jur ay. mais du ko def. Ah, loolu moo tax état war a jël ay responsabilité ba ñuy wax naan yokk ñuy wax naan ay prêt danoo def ay prêt def ay kër kenn def fi prêt fii ñëpp ay def prêt. muus yi sax dañ leen defal prêt pour mën leen a kii ñëpp ay def prêt ñu naan noonu dana def ay prêt yooyu yëpp dañ doon naxaatee su ma fa nekkoon dama naan da ngeen di naxaatee fii yow soo defoon benn prêt léegi tey am fii benn kër deux ans trois ans sa xaalis génn fan nga waxee alors que en Europe il faut nga louer toute une génération ay vingt cinq ans nga louer ko kër pour mën a jot sa xaalis mais kër yi ñuy tabax fii Dakar soo ko louer cinq ans di par procuration mooy lan. Félix demal xeexal ma. xam nga ñu ngi nelaw man tey ba heure laa yow pour ñëw émission bi. Félix demal xeexal ma. loolu lan tàmm man ma toog loolu aussi tax na problème location kenn si y avait une mobilisation citoyenne autour de la question mais. kon problème bi rek la